mille 2014 fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne du ñu dañ di fàttaliku góor gu baax doonoon xalif général di Tidiane Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ibnu Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhuma mu nekkoon koo xam ne pusa la woon daan ñëw ci diggante mbokk yi pusa la woon daan defar ci diina ji pusa la woon daan ñëw ci diggante tarixa yi du fekke lu yàqu du fekk taal buy tàkk bépp taal bu mu fekk muy tàkk mu fay ko lépp lu mu fekk mu nar a yàqu mu taxaw ci def ci kémt lay kàttanam ba yàlla may ko ci ndab kooku nga xam ne sauvetage la woon ci Sénégal Sénégal duñ dañ di ko jooy ba suñu bisu tey bii di 14 septembre tombeeg dimanche bi nga xam ne ci la génnee woon àdduna kooku nag euh, asfiyahi point org fas ci yéene def ak yéen benn waxtaan waxtaan boo xam ne ñi dañuy waxtaane kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ci wàllu askan kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ci wàllu diine kan mooy Cheikh El Hadj ci wàllu xam-xam rawatina bind bi nga xam bindam yi nga xam ne bàyyi na ko fi muy ay digle ak ay tere ak ay ñaan ak li bind ya nga xam ne bind na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene ànd ak kan muy koo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko jarul présenté muy al oustaz Ousmane Ndiaye bu alxaaji Souleymane Ndiaye euh, nga xam ne euh, muxaddam la waliyu la kilifa la ci tarixa bi doon jarbaat ci Cheikh alxaaji Malick Sy radiallahu taala anhuma Euh, kon al euh, Ousmane Ndiaye moomu ñu gën koo xam ci Ousmane Ndiaye bu Kër ale ñiinaan ko Ousmane Ndiaye bu Tiwaawoon moo ñu fas yéenaa defal waxtaan wi ndax boo déggee Ousmane Ndiaye bu Tiwaawoon Tiwaawoon la jànge ca daara ja génnee ci université bu Tiwaawoon jógee fa dem Égypte euh, ca Al Azhar génnee ci kulliyatu usulu diin xismu tafsir wa ulumul quran kon ku ñëpp xam la di borom xam-xam di ko xamante ni tabaarakallaahu yàlla may na ko fasaha macha allah yàlla may na ko tamit tabaarakallaahu mu nekk gëstu kat nekkul koo xam ne ku taayal la mi ngi gëstu ci wàllu mbind mag ñi waaye mi ngi gëstu tamit ci wàllu diine rawatina tafsirul quran bi nga xam ne tabaarakallaahu euh, euh, ku ci ku ci yàlla may la kon kooku mooy ki nga xam ne moom lañ fas yéene ànd rek ci waxtaan woowu kon boog duñ def rek lu dul bàyyi leen ak oustaz Ousmane Ndiaye mu wax leen kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ci wàllu askan waaye kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ci wàllu diine kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ci alaax bi nga xam ne amoon na ko ak mbokki euh, euh, jullit ñi amoon na ko tamit ci digganteem ak euh, yeneen tarixa yi amoon na ko tamit tabaarakallaahu ci digganteem ak yeneen kilifa diine yi waaye tamit mu wax ak yéen ci kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul ci wàllu xam-xam rawatina ci bindam rawatina tabaarakallaahu ci xasida yi nga xam ne bind na ko bàyyi ko fi kon boog duñ def lu dul bàyyi leen ak al ustaaz Ousmane Ndiaye bismillah kam yataari alxub bi lazaati ma alamin lakin farihi arbaabu lmayadini bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ni ñi ngi seetaan asfiyahi point org ñi ngi ñëw di leen nuyu di leen ziyaara di fas yéene ànd ak yéen ci benn la muy turne walla émission walla waxtaan ci koo xam ni fa tabaarakallahu nitu yàlla la te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadisul qudsi yi ci ne am na ci gaay yàlla yi ñoo xam ni yàlla su leen xoolee su fekkoon ne am na ku mu mere bu leen xoolee rekk xolam dafay di sedd te waxtaane nitu yàlla jàmm yàlla la dina far ay bàkkaar waaye itamit dina yokk ay leer te dina mën a may nit ki mu xam fan lay teg tànkam loolu moo tax asfiyahi point org lépp loo xamante ni dafay jariñ humanité di jëriñ nit di jëriñ diine di jëriñ lislaam di jëriñ tariqa bi di jëriñ àdduna du ko bàyyi bu dee occasion la foog mu def ko tey nag ñu ñëw indi góor goo xam ni kenn la ci góoru yàlla yi mën na ni bokk na ci ñi nga xam ni yonent bi moo wax ci xadiisul qudsi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci jaamu yàlla yi koo xam ni walla ñoo xam ni duñu ay malaayika duñu ay yonent waaye yonent yi daf leen di ñee ndax martaba walla cër bu leen yàlla defal moom mii ñu tax a jóg tey nag kenn la ci ñooña mu di al cheikh alxaaji abdul aziz ad dabbaar mu nekk anniversaire bi mu génnee woon àdduna 97 le 14 septembre 1997 bala 14 septembre 2014 ñi del waxtaan wi nag def ko ci ñetti parti parti bu njëkk bi mooy danañu wax ci askanam ñaareel bi ñu wax ci wàllu éducation niñ ko yare ni mu yaroo ñetteel bi côté spirituel bi ci côté am mbindam ak li nga xamante ni liggéey na ko ci wàllu xam-xam liggéey ko ci wàllu jaamu yàlla yow yàlla sëriñ bi nee na yow yàlla yaa wax ne yow de yaa wax ni ud'uuni astajib lakum yéen yaa leen ma ma wuyu leen wa lihaada ataynaa baabaka alkarim loolu nag tax na noo ñëw tey ci sa buntu bu tedd bii toolandoo fi nun ñëpp alladi laa yaxiibu qaari'uhu képp ku ma sa fëgg sa bunt bi waax ca kanam bunt ba di déglu kookee day dooy fooyal njot sa mukk la mu laaj da nga ko ko jox mutadarriina wa mubtahiliina ilayka la ilayna wala ila gayrina mutadarriina noo ngi loru loru di mubtahiliina di loru loru di bëgg loo xam ne lii yow rekk a ko am te ci yow la nu ko bëgg mumtasiliina bima amartana bi noo ngi jéem a temm temm bu baax ci li nga nu digal nu defe ko noonu ومتوسلين بجاه من أرسلته هدى ورحمة للعالمين di sukkandiku ci daraja ka nga xam ni moom nga yónni ci nun hudan wa rahmatan ci njub ak yërmande wa bijaahi cheikhina wa rajaina bi ja euh, ci sunu barke sëñ te sunu yaakaar li ñu bëgg nga defal ñu ko yàlla li ñu bëgg lep yàlla na nga ñu ko defal bu ñu leen dikkaleen ci premier point bi muy première partie bi ñi def ko ci askanam askan dafay am solo ci mbaaxu nit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ni man maa ngi bokk ci askanu Quraysh te samay maam kenn mësu see sëy sëy boo xamante ni lislaam contesté na ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni mbaaxam am na ci loo xamante ni ci askan lay jóge moo tax juddoo fu baax 90 pour cent mën na laa def nit ku baax kon sens la ci nit ki mu juddoo ci environnement boo xam ne environnement mbaax la kii ñuy waxtaane nag bu dee ci wàllu askan askan wu rëy wu riche wu am ngor askan wu am diine askan wu am xel askan wu am ay valeur yu muy dégager askan wu am lu ñuy bëgg am lu ñuy bañ ci la juddoo ñu koy wax askanu Demba na boo xoolee Cheikh El Hadj Abdou way juróom wu góor mi ngi tudd Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Seydi Hadji Malick moomu maam Ousmane si moo ko jur maam si Sy Demba Bunna Sy moo ko jur way juróom wu jigéen moom Cheikh El Hadj Abdou Aziz mi ngi tudd soxna Safiyatu Ñang Safiyatu Ñang boobu aram mbonko moo ko jur aram mbonk si moomu ak maam Ousmane si mi jur alaaji Malick ñoo bokk benn baay kon Seydi Hadji Malick dafa jenc ci cousinam mu am si Cheikh Alxaaji Abdou Dabakh kon moom alaaji Abdou noonu la bokkee ak waajuram di Seydi Hadji Malick moom nga dégg waykat yi dafa naan aram mbonk soxna njaay soxna njaay boobu soxna démb na la woon waaye nag moom Cheikh Alxaaji Dabakh mu juddoo ci askan woo xam ni xamuñu lu dul mbaax xamuñu lu dul jub xamuñu lu dul ay valeur xamuñu lu dul xam-xam te mu nekk ñi nga xamante ni dañuy doomu ñaan xam nga doom boo xamante ni dañ koo préparé ñaan ko yàlla bokkul ak doom boo xamante ni danga nga takk soxna rek war a am doom euh, bi ma la nettali moo di ne alxaaji Malik si mi nga xam ni mooy taawu Cheikh Al baax Dabakh ñu koy wax sëñ Maodo daf ma nettali ne ma maam Safeetu Ñang bi mu ñëwee kër Seydi Hadji Malick yàlla daf ko defoon mu doon njaboote jigéen ndax am na juróomi jigéen ak ñetti góor bi muy jaboote jigéen di jaboote jigéen ba xëy ñëw ci Seydi Hadji Malick ne ko ah man de dafa mel ni sama yaakaar mi ngi waaj a tas Seydi Hadji Malick ne ko lu tax mu ne ko dama xam ni wóolu yàlla bu toll ni yow ñi muur ma indi ma sa keppaar ma nar a ànd ak yow te naruma fi am doom bu góor bu ñépp di xam ëllëg day sama yaakaar dafay tas kon nga gis ni ñoom mag ñi seen objectifu sëy seen objectif am doom doom ju baax lan doon lan doon ñaan yàlla mais ñoom du du sëy sëy bu neex rek mais dafa am résultat wu sëy lañ doon wut mooy am doom boo xam ni ñëpp dañ naan ko eskay Seydi Hadji Malick ne ko loo si bëggoon mu ni ko nga ñaanal ma ma am doom yu góor mu ni ko ah ñaan da dafay ànd ak weexal ci waxinu wolof mu jël sëru dënkam weexale ko Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick ñaanal ko mu taawloo Alaaji Mansour di góor Cheikh Alxaaj Abdu Dabaax ñëw seen Habib ñëw kon ndekete moom dafa am sens juddu ci li ñuy wax doomu ñaan bi mu juddoo nag ah mu juddu nekk ndaw li ñuy wax tuut tànk walla sax olof di ko tudde liir baayam Seydi Xaaji Malik bu ko daan tëgal tëgal mooy ni ngay jële sa xale bu ndaw bébé bi di ko fob di ko naxtaan daf ko kereeloo ñetti bayit walla ñaari bayit ñu koy wax poésie ci arab bu ko daan jël di ko nax boobu mi ngi nekk xale da ko daan wax naan ko yaa uddati fi shiddati in lam takun anta faman yunqiduni min arrada yaa saaxiba alficli alxasani tuuba liman baata bikum musharridan an ilwatani da ko daan wax naan ko yow liir bi di ndaw sama yaakaar ci diine ji sama yaakaar ci tariqa bi sama yaakaar ci mbokk gi wékk naa ko ci yow ba bu ma xalaatee lu ma nar jaaxal sama ëllëg su ma la xoolee rekk sama xel dal mag ñi nettali nañ ne bëyit yooyu walla poésie boobu Seydi Xaaji Malik daan naxe Seex al Xaaji Abdu bi mu nekkee xale benn bis fab na ko di wax di tari bayde di wax yaa uddati fi shiddati sëriñ Babacar si daal di dugg magam bi sëñ Babacar si dugg fekk Seydi Hadj Malick tiim Alaaji Abdu mu nekk xale mu naa ko yaa uddati fi shiddati sëñ Babacar di ko dëggal di def nii di wane ne waaw di ko dëggal di ko def di def nii di def nii ba mbaxana mi jeng te ñépp xamoon nañu mbaxana sëñ Babacar si radiallahu taala anhu yàlla mayoon na ko ba lim daan jeng bariwul waaye mi ngi koy dëggal di ko dëggal di ko dëggal ba mbaxana mi jeng di def def di confirmer ci li baayam di wax moom na Cheikh Al Hadj Dabakh yàlla may ko mu juddoo ci environnement bu bu bu positif ndax tubaab dafay wax ni l'environnement qui détermine l'homme moom environnement bi mu juddoo mooy woy juram wu góor xamul lu dul yàlla ak daara ak jàngale woy juram wu jigéen xamul lu dul yàlla ak def lu baax ay magam yi ko féete woon kaw dale ko ci Serigne Babacar Sy nga xam ni xaw na ko mën a jur booba mi ngi nekk ndaw waaye xamul lu dul njub xamul lu dul baax léegi environnement boobu nag soo si juddoo pour nga baax dafay daal di yomb moo tax ñiy wax ni ndabal yàlla du ko yàkk ci walla añub yàlla du ko yàkk ci ndab lu tilim moo tax leeru seydinaa muhammad salaa sallam famille yi mu jaar ndigg yi mu jaar bu si nekk yàlla daf lay protéger ba doo jaamu xërëm doo def naka su dul noonu waaye boo xoolee Cheikh Alxaaja Dabaax ci ay wayjuram ci ay maamam côté yaayam côté pàppaam ay nit lañ woo yoo xamante ni lépp loo xamante ni wuute na ak diine mësuñu koo def kon li tax ñu jël première partie bi jagleel ko ak juddoom juddu dafa am solo ci mbaaxu nit juddu dafa am solo ci mbaaxu nit ndax alquran dafay faral di wax ni yonenti yàlla nuux bi mu ne yow yàlla dëkk bi yépp dama bëgg nga alag leen mu mel ni yàlla daf koo laaj lu tax mu ni ko ndax ñoom tollu nañ ci mbon foo xam ni mënatuñoo jur lu baax pour nag éviter loolu mooy rey leen ñoo ñëpp mi ngi mel ni ki féeruus dina dugg ci dëkk ba lu ñu judd lu soo juddoo yor feebar boobu ñu nañ éliminer ñooñu mbon nag mbon féeruus la boo xamante ni moo gën a garaaw di nit ki dina bon di bon di bon di bon ba nga xam ne mënatula jur lu baax rabbi laa tadar ala ala min al kafirin dayyaara innaka intadirhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaara waaye nit tamit dina toll ci dëgëra mbaax foo xam ne mënatul a jur lu bon loolu la ñuy wax assalaaxa ya muy yiw moo tax alquran di wax naa wakaana abuhuma saalihan moom bi muy judd fekk na way juram Seydi Xaaji Maalik radiallahu taala àgg na ci martaba la ñuy wax salaaxiya salaaxiya mooy mbaax ak yiw goo xam ne bu fa nit xasee ba àgg mënatu la jur lu yées lu baax rek lay jur foofu nag yonent daf koy judduwaale moo tax yënant bu amee doom am na mille sens pour nekk yonent Seydi Xaaji Maalik radiallahu taala anhu nekk koo xam ni lépp loo xamante ni mission yàlla la mu téye ko ci loxoom jàpp ne lu mu war a am dafa war a méngoog li yàlla bëgg mu nekk koo xamante ni dafa préparé ak njabootam ci ay soxnaam préparé leen ci ay ñaan préparé leen ci terrain boo xamante ni fa lañu war a wàcc te juddu askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydi mi ngi ko wax ci xilaas bi nee na boo gisee yonent bi gën ñépp moo dina dafa juddoo ci askan woo xam ni ca jamono boobu ñoo gënoon ci askan yépp ndax ñoom ñoo amoon ay valeur ñoo dese woon valeur yi nga xamante ni moom la nit soxla ma nettali la si benn sa ci wan na la ni li tax ñu jël première partie bi def ko muy askan wi mu juddoo askan dafa am solo ci mbaaxu nit abu sufyaan lu njëkk muy tuub nga xam ni booba yéefar la dafa mas a dem yaman buuru yaman bi woo ko ba mu ñëw ne ko man de dama dégg ne am na kuy woote yenant seen dëkk yéen ñii ku ko fa xam abu sufyaan nee na ma tàllal sama loxo ne ko man maa ko xam ndax man ak moom ñoo bokk benn askan ñoo bokk deret ñoo bokk benn maam mu ne ko kon kaay ma laaj leen buur bi daane abu sufyaan kooku di woote yenant ndax mbas ngeen koo xam ci wax lu dul dëgg mu ni déedéet ci kanam la juddoo demee mësuñu koo gis ñu fo mu ni ndax mbas ngeen koo xam ci wor mu ni déedéet mësula wor de ba moment bi may waxee yow nii sax signé naan benn pacte ñu nag ñoom xaw ma ne fu mu mujjamee mësuma koo gis ci wor Abu Sufyaan nee na jamono bi ko buur bi di question di poser ay question ci yonent bi nee na ci kaw suuf moo gënoon a bañ yonent bi ba buñ ko joxoon jaasi mu rey ko mais mënula fen ndax deretam du fen bi mu naan ko ndax kooku baax la danaan waaw mais bëgg koo sosal ndax askan yu mu bokk du ñu sos xamuñu wax lu dul dëgg kon ndekete askan dafa am solo ci ci ci ci nit rawatina nitu yàlla wala rawatina ëllëg koo xamante dafa am loo xam ni moom nga ko war moom nga war a taxaw ëllëg kon Cheikh Al Hadj baax ci noonu la ganesee àdduna ci bi mu see àdduna ah euh, sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu daan na wax ni kër gii. di kër Seydi Hadji Malick bu doon ab gàtt bu doon xar Abdul Aziz mooy res wa moom laajul paaka laajul jaasi foofu kon mu ngi lay xamal ne la moom ku ku ku nooy la ku neex a jëflanteel la ku neex jëflanteel la ba bi mu nekkee xale nga xamante ni mu ngi toll ci juróomi at wala juróom benni at boo ko masaana bett wax ko ne ko waañ wi kat la ñu fa jencoon yaa ko lekk dafay crise ndax ndax ndax ndax ndax injustice bi nga ko teg ci xale boo xamante ni dafa waroon toll foofu di def naka sudul noonu boo ko jiiñee dara muy crise loolu li ko may mooy dafa juddoo ci dafa juddoo ci way jur yoo xam ni xamuñu lu bon mënuñu ko ci njub ak mbaax rek la ñu nekk moo tax olof di wax naan kéwal du tëb doom ja di bët te it olof di wax naan gajji geer geer jébbi c'est-à-dire garab boo ko goree bàyyi ko mu war a màggat même garab ba lay màggat kon mu ngi lay xamal ni que askan dafa am solo ci nit Cheikh Al Hadj Abdas askanam di diggante waalo ak jolof diggante waalo ci waajuram wu góor ci côté yaayam muy faawaad wele waaye itamit di jolof ci juróom wu góor ci côté papaam waaye way jëwër mu jigéen ci papaam ak yaayam yépp nekk askanu jolof te ñaari askan yooyu ci biir Sénégal nekkoon nañ askan woo xam ni wu ñu ràññee lañu woon ràññee woon nañ leen ci mbaax ràññee woon nañ leen ci njub ba nee nañu way juróom wu jigéen mu di maam safiyatu ñang bi Seydi Hadji Malick di dem Màkka dénk ko freeram am Mamour Binta Si dénk ko kër gi Mamor Binta si Seydi Hadji Malick dem na aj ba ñëw nee nañu aju Seydi Hadji Malick ga diire na lu mat ñetti at ci li gën a wér mais diiraan ñetti at yooyu nga xamante ni frère moom Seydi Hadji Malick di Mamor Binta si moom la dénkoon kër gi maam Safeetu Ñaŋ di wayjuru Cheikh Alhaji Dabakh mi ngi si biir kër gi ñetti at yi Seydi Hadji Malick dem àll yëpp gisul soxna si mosu koo gisante moom bët lu ñuy waxante ci ginnaaw rido bi lañ koy waxantee bu koy jox dara day yónnee mu dem joxe ko mosuñoo tegante bët kon ndekete ñoom nit ñu sàmm lañu woon ndax woy juram Seydi Hadji Malick daan na wax ni ah man Maodo bokk na ci li ma gën a bañ mooy baati góor ci biiri jigéen wala baatu jigéen ci biiri góor kon ndekete ci environnement bi la Cheikh Al Hadj Abdou baax Dabakh juddoo kon première partie bi lin si mën a jànge moo di ne kenn ku si nekk war ngaa fexe ba yiw war ngaa fexe ba baax war ngaa fexe ba sa askan nit ku nekk yaay sa ambassadeuru askan da ngay dégg sax ci waxinu olof euh, ñiy tooñante diggante jóob wala njaay nga def naka su ñaan la ah bu la njóobeen yi jàppee yow de yaa ngi yàq deru njóobeen wala yow de yaa ngi yàq deru njaayeen yi kon kenn ku si nekk yow yaay sa ambassadeuru askan yaa ko mën a valoriser yaa ko mën a dévaloriser kon nag moom Cheikh Al Hadj Abdas Dabakh dafa ñëw valoriser waat askanam jële ko ci baayam Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu loolu lañ mën a jànge ci première partie bi moo tax mag ñi bu njëkk mun daan jël soxna du n'importe quelle famille la ñuy jëlee soxna selon que ñoom seen mission li mu laaj ak ak ak doom yi ñu bëgg ëllëg ci famille yooyu lañuy dem di jël moo tax boo xoolee famille mag ñu baax ñépp da ngay gis ni dafa am lu leen di lié lu leen di boole ndax ñoom mbaax dañuy wax ne montre la yu baax yépp ñoo bokk heure nga gis nga gis ci Seydi Hadji Malick ni mu bokkee askan maam borom Touba radiyallahu taala anhu nga xamante ne maam Maaram Mbàkke moo am soxna suñu wax Farimata am soxna suñu wax Aysa maam Maara Mbàkke moomu soxnaam bu ñuy wax Farimata moo jur Amadu Farimata Amadu Farimata moo jur Mati Mbàkke Mati Mbàkke jur Usmaan mu jur Seydi Hajj Malik soxnaam boobu ñuy wax Aysa moo jur Balla Aysa mu jur Maam Mor mu jur Sëriñ Tuubaa kon nga xamante ni lii ñu Seydi Hajj ci maam Usmaan Mati Mbàkke Amar Farimata Maara Mbàkke lii ñu Sëriñ Tuubaa Maam Mor Anta Sali Aysa maam Maara Mbàkke kon nga gis ne ñoo bokkaat foofu même maam loolu li ñu si xamee mooy ñoom dañ daan tànnante ci askan yi nga xamante ni dese woon nañ ay valeur dese woon nañ ay jikko moo tax benn boroom xam-xam di faral di wax ni ah, askan wu nekk walla famille bu nekk li muy gëne ñi leen koy nawe mooy ay valeur ay jikko su fa jikko yëpp jógee rek tekkeetuñu dara su fa jikko yi nekkee nag ñépp naw leen kon loolu lañ mën a jàng ci première partie